pour daw yóbbu plus de 12 000 milliards yoo xam ne tey boo Sénégalais yi dañ ko a financer ci luy ci luy yéegal seen économie léegi rek xamal ne dugg nga ci parce que tamit c'est prévu par les tests tentative moom bu mu di si s'il aura à se manifester par un commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire elle est punissable mm. ak bu mu mën di doon moom muy crime tentative de délit ci bu dee ay complicité moom c'est pas punissable tentative de complicité yooyu garaawul léegi nag moom boo xoolee ci fay moom li indi ko motif dane sama jabar moo tiitoon mhm. may daw du loolu la wax mhm. cela veut dire que weddiwul ne da doon daw mhm. mais nag ndax loolu mu invoqué noonu rek motif la pour nga daw sa jabar tiit rek nga daw sa jabar tiit comme bi nii kenn tiitoo rek dama am la daw donc foofu la ñuy waxee quoi di nga euh, nit peut-être justement que par rapport à cette question demain on aura comme invité un des employés de Premier bête parce que nous nous euh, une euh, conférence de presse euh, ils ont été licenciés on leur a envoyé un message dans leur groupe WhatsApp nous que nous ce qui veut dire que nous waaw loolu loolu tamit comme loolu nga wax rek ñoo ñu xam nga rek seen droit bu ñu ko violé yoon am na ci réew mi. Mhm. dañoo waroon a formé wu tamit ñu dem ci yoon. saisir ñu ngi ci sax ñu ngi ci moo tax suba incha moom contrat de travail. moo leen di ko leen régir mhm. am na obligation yu muy respecté même chef d' entreprise bi aussi am na obligation yoo xam ne daf ko war a mhm. mais daal li ma ci wax mooy. fee yi na jàngal yeneen entreprise yi fi ne. impôt fay la waaw si man Mamour. je pense que mu nekkoon loo xamante ne ñi ngi ko doon waxtaanee démb léegi nag euh, enquête bi am na foo xamante ne foofu la toll waa ji bi mu jàkkaarloo ak les enquêteurs nee na jabaram moom moo xawoon euh, tiit moo tax mu def loolu c'est que bu bu ñu bu ñu foowee suñu xel quoi mm-hmm. te gis nga ci biir réew mi. Nous avons des institutions ak des personnalités qui dans les recherches yu xarañ trop et ku la division des investigations criminelles wax ci des dañuy xam que ce sont des personnalités qui sont très douées Nous, si suñu corps non. nous sommes allah dañ leen siy sante te ñi ngi wax tamit machallah allah Adja ben exemple mom la lay jox damay dama wacc fi di ñibi on est en Afrique administration l'administration sénégalaise fait partie des meilleures administrations mm-hmm. et c'est dans tous les secteurs parce que là on a des personnalités très compétentes et très professionnelles mm-hmm. donc je donne nañu information sur les actes qui avaient été posés au préalable par le DG de Première Bête. Quand mm-hmm. la lu muy wadjal fu muy jaar ils ont les renseignements motax bi mu démé ak wa kërëm ñu ne ko ah sawaay yow kat mëno génn parce que d'après les dernières informations entreprise bi ngay diriger amel ngeen lu toll ci 12 milliards té xaaliss bobu askanu Sénégal mom moko mom légui nak si ñek ak teraanga rek kañ dem ñu laaj la ay questions légui nak devant les enquêteurs mom chacun a l'aptitude non mais xam nga ajaar amna ci ben wa jo xamantene xamante ne fee la doon nekk téeru bi bi ko gars yi dugal ko ci sen pas fourgonnette sax mais ci sen salle yow bàyyi la fa benn deux heures de temps da ngay janaxe et ils ont des techniques yo xamantene s'ils veulent savoir toutes les informations ils le savent du wax taylé parce que mom ak famille mom ñom ñoo dem légui nak dafa amel xaalis état bi état Sénégal day sukkandiku ci li nga xamantene mom moy les impôts pour avoir un revenu sur le plan financier si l'État n'a pas de revenu wala ñi wara fay impôt jaarul ci yoon mais dañuy am ay problèmes et surtout contexte bi nga xamantene ne ñu ñuy wax ne que liñ fi fekk ci ay dommages c'est énorme donc ñi nga xamantene ne tey jii nii ils doivent être en règle avec euh, li nga xamantene mom moom mooy le fisc les impôts nañu dem régler ko te il faut savoir que il peut y avoir des concertations du question que lii dans la globalité il peut y avoir un processus vous allez trouver un moyen pour pouvoir régler ces choses là et dans une durée bien est fini. C'est la réalité. Donc, on n'a pas besoin, encore une fois, de faire des euh, spéculations. Tu vois, le bob non, nous. Dès qu'il y a une enquête, nous trouver un consensus, nous régler les et aussi nous ni euh, les dernières décisions sur les autorités concernant les jeux de paris foot et les jeux de hasard. Alors, euh, bien. Euh, alors, très bien. encore une fois il y rek fële ca régime jàll a bi di